voilà léegi nag tey euh, mu mu daal di génn ci coalition bu benn Bokk Yaakaar daal di ni nag jot na euh, mu créer parti am ndax nee na njiitu réew mi da ko ni woon loo décidé wax ma mu ni moom li mu décidé mooy que ni daf ko ni day créer parti mu crée euh, samedi bi ñu passé parti bi nga xamante ni mooy PSC. Mm. daal di koy lancé. mu nekkoon nak ci bir coalition bu Benno Bokk Yaakaar le moy pour qu'on puisse dire en est que amna base bo xamanteni commencé won nako ko dajale fii ci bir keur Massar am ay responsable yu nekk ci coalition bu Benno Bokk Yaakaar yo xamanteni ñi ngi doon and ak mom tay mën nañ ci cité ku mel ni mohammed Sagna ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamanteni min nañ leen ci coalition bu Benno Bokk Yaakaar tay mu dal di créer parti ñu gis ñooñu itam and ak mom est-ce que kon Benno Bokk Yaakaar doole bi nga xamante ni amoon na ko ci biir Kër Massar ak génn bi Assome Aminata Diatta génn yóbbaale ñenn ci ñi nga xamante ni ñu ngi woon ci coalition Benno Bokk Yaakaar dina leen mën a dimbali ngeen nanguwaat yeew euh, euh, euh, département bu Kër Massar ci loxo ñi nga xamante ni ñoo di waa Yewwi Askan Wi. moom la mu génn def ñoo arrangé parce que moom ba mu ñëwee ba léegi parti la ñuy def. mais ba mu génnee dafa am ñu yóbbaale. yóbbaalewul ñoo xam ne ña mu yóbbaale sa ñoom kottu la seen kàtt lañ yor ña amul ñetti nit moom pour mu feesal saal la ma waxoon saal pour mu fees pour mu feesal ko moom dafa am nu muy doxale nit ñi est-ce que comprendre mhm. ña yóbbaale ñooñu seen carte lañ fa am amuñ base politique wax leen ñoom ñu génn barki démb def na meeting dafa flop mhm. meeting bi dafa flop mhm. yéen gis ngeen ko man damaa rus man ak moom bi ñu àndee suñu meeting bi ñu def foofu génne leen ñaari image moo yeen comparé ko moom élection bu ñu taxawoon bu ma génnee taxaw dañuy dañuy yaakaar ne man maay candidat fofu biñ fa defé meeting man ak mom bi muy lancé bi muy lancé son programme là fiñu tok toog daf maa ne ni jogal nga calmer calmer nit ñi tellement que sama responsable biñu excès fofu xolal kenn mënu ti ti dé nit ñi bima buñ defé meeting buñu buma joggé buma waxé meeting ba nit ñi jeex ça amul base politique amul base mhm. base politique man mako am parce que base bo am base day fekk nga ak nit ñu nga xamantene ni tay ji ni tay ji ni ñoñu bu nexé ñu and ak yow bu naxaré ñu and ak yow ba ba dara nekkutee dara dañoo ànd ak yow